kenn merul maa yërëm ku la bañ sam noonu di nelaw maar yaasin may sa may sa maar yaasin ajun naan bi ci ndojer ka démbe bi ci làmbaay Bamba Wally euh, tey ban yëg-yëg am na ci contentement xam nga bu ñu demee ba ñoom ñu yàlla dogal ñu yàlla may leen borom kër dañ koy sant yàlla bu baax am nañ ci contentement mm, vraiment am nañ ci contentement jërëjëf tey lan nga koy wax ci sëy bi nga xam ne dugg na ci waaw góorgóorlu rek góorgóorlu rek na xool na xool na ci ci ci ci ci jaaga mm-hmm. ah na xool ci waajuram na xool ci soxna na xool na na rek na muñ xam nga sëy moom benn neexul na muñ rek waaw incha allah muñ topp sa borom kër muñ bul gestu bul lijjanti waaw mhm, c'est très important alors rek loo xamante ni moom ngay dénk ki nga xam ni moom ngeen ko may quand même Mamour doful ah. Mamour gis na li mu jël ah, tamit mhm. suñu doom ji tarkala jongo jongo ma la mais Mamour moom d'après li ma dégg vraiment liggéeykat la mi ngi ca Ibiza jàmbaar la quoi yàlla yàlla sàmm ko te yàlla boole leen. tey ngi war a dem jëm tëngéej bu sob yàlla mm-hmm. incha allah. mais mais rek le huit le huit le huit laay def sot le huit. nee na képp ku bëgg la yegg fa nga jëm nag mooy koo xam ne lu mu am lekk ko moom dong lu mu am jagoo ko ak na xër ci ak mooy ak sukkandikoo pexem doomu aadama nee na wax na itam ne jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla dafa niroo te bokkuñu nee na nee na jaamu yàlla ci la waaye liggéeyal yàlla nag ci jàmm yi lañ koy def. nee na jaateg ne képp ko amal nit ñi njariñ. amal nga yàlla njariñ. ne képp ko amal yàlla njariñ nag. nee na ka waay waay Wally Seck nga yàgg fee gën. nee na kaw suuf si nag moo gën biir suuf si. nee na képp ko amal nit ñi njariñ nag. nee na leer nag amuloo yàlla njariñ. ne ko amul yàlla njëriñ biir suuf si gën cee ko suuf si ne loolu sëriñ Tuubaa sunu a neex ci li ma gën a neex ci moom mooy tur wi ne ku ma xam sikk. waaye waaye gisatuma sa seen sikk. ndax boo xasee daal. amatoo seen sikk sikk. ndax yàllaa lay dimbale ndax nee na yàllaa lay dimbale nga bëgg sëriñ bi. bëgg sëriñ bi. nee na bëgg sëriñ bi. am lijjanti mayewu ko. am xam-xam mayewu ko. xam-xam mayewu ko. askan mayewu ko. askan mayewu ko. daraja mayewu ko. daraja mayewu ko. yàllaa lay dimbale. waay waay yàllaa lay dimbale rek. nee na bëgg loola sëriñ Tuubaa. ndax sëriñ boobu sëriñ Tuubaa moo wax ne boppam ne. xol yi ñu ne ma texe. nee na xol yi ñu ne ma texe. danañ ma bëgg. danañ ma bëgg. képp koo xam ne. nee na képp koo xam ne. seq na ay jéegoom. seq naa ay jéegoom dem ba Makka. dem ba Makka. ne labbayka. ne labbayka. wala mu dem ba Madina. wala mu dem ba Madina. ne asalaamaaleykum yaa rasulallah. ne asalaamaaleykum yaa rasulallah. te ma nekk ci xolam te ak noonu ma nekk ci xolam bi. nee na yàlla du ko fay. nee na yàlla du ko fay. loolu la sëñ Tuubaa ko bind. bamba nag ñu xam ci moom bëgg sëriñ. nee na bamba bii nag ñu xam ci moom bëgg sëriñ Tuubaa. loolu moo waral ñu teew fi. nee na looloo waral suñu tànk ñu teew fi. fekk fekk suñu kilifa gi. liñ koy dénk nag. nee lay dénk nag mooy la sëriñ bi waxoon ne. mooy la sëriñ bi waxoon ne. jigéen day mënta ñàkk mu wéeru. jigéen day mënta ñàkk mu wéeru. ndax bu taxawee te wéeruwul. ndax bu taxawee te wéeruwul. ab jël da koy yomb. ab jël da yomb. daan ne kon kii borom këram. daan kii borom këram. nan nangu mu wéeru ji. moom. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag. nee yonent sallallahu alayhi wa wax na jigéen fa muy jaar ba mucc. wax na jigéen fa muy jaar ba mucc. ci xaddis bu gàtt. ci bu gàtt. nee la ca njëkk. nen na la ca njëkk. mooy nay. nay nay taxawal julli yi. mooy nay taxawal julli yi. nay woor weeru koor. nay woor weeru koor. nay wattu boppam. nay wattu boppam. nay topp borom këram. nay topp borom këram. ba ko juróomeel. ba ko juróomeel. daxale nit mooy mu tàbbi aljana. mooy ndigalul borom kër nag. mais ndigalul borom kër nag. moo gën a foor ci soxna. moo gën a foor ci soxna. ndigalul way ndigalal way ndax dañuy wax ne doom ju góor nee ndax dañuy wax ne doom ju góor ki ëpp ci moom àq ki ëpp ci moom àq mooy baayam mooy baayam waaye doom ci jigéen waaye doom ci jigéen ki ëpp ci moom àq ki ëpp ci moom àq mooy borom këram dañuy wax ne ajjanay soxna day nee na ajjanay soxna day mi ngi ci ndëggul tànkul borom mi ngi ci ndëggul tànkul borom këram moo tax ñu ne borom kër day dañ koy topp moo tax ñu ne borom kër dañ koy topp waaye yàlla waaye yàlla la di jaamu tax sëñ Tuba waxoon moo sëñ moo tax sëñ Tuba waxoon ne ca wasiyatu soxna Penda Diop ca wasiyatu soxna Penda Diop nee na yow soxna si nee na yow soxna si xaleeki bi maa ngi lay dénk muñ nee na yow maa ngi lay dénk muñ wa taqwa sa borom ak ragal ak ragal sa borom fii siri ci lu ci lu nëbbu fii siri ci lu nëbbu wal jëxe ak ci boo ko defee nee na boo ko defee boo ko defee yàlla jéggal la mu ne ko itam nee na mu ne ko itam yow soxna si yow soxna si. bul sàkkoo topp yàlla. bul sàkkoo topp yàlla. lu dul nga toppee ko ci sa ndigalul. lu dul nga toppee ko sa ndigalul. borom kër ولا ترومي ولا ترومي طاعة الله طاعة الله بلا طاعة بلا طاعة زوجك زوجك التقي التقي ذي الهلا ذي الهلا bul sàkkoo topp yàlla lu dul nga topp ko ci sa ndigalu. nee na bul sàkkoo sàkk topp yàlla lu dul nga topp sa ndigalu borom kër. di ragal yàlla. di rag bi ragal yàlla. ndax nee na bu la sa borom kër gërëmee. ndax nee na bu la sa borom kër gërëmee. yàlla gërëm la yàlla gërëm na la. bu la sa borom kër gërëmul. bu la sa borom kër gërëmul. yàlla du la gërëm yàlla du la gërëm ba faw. moo taxoon soxna Bamba. moo taxoon soxna Bamba. ñu ngi lay dénk nga gën a góorgóorlu. te gën a muñ. te na ne sëy moom. te ku ne xam ne sëy moom. sëñ Touba nee naqar la. naqar la. ak coona. ak coona. ab jullit. ab jullit. day muñ naqar. day muñ naqar. asgor. asgor. day muñ coona. day muñ coona. wasalaamualeykum. defal ñaan kon na ñëpp ñaan. ñu déglu sëñ Maam Mor Khady Rafet. jërëjëf Mbacke lii la doon xaar ci yow. allah sëbli dan ci ñaan yàlla saa borom barkeel sëy bi na def ci jàmm te may la njaboot gu góor ak njaboot gu jigéen barke sew xat amin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين وصلي على النبي وسلم آمين واقض به حاجة آمين واقض هوائج الذين داووا آمين وهب لهم ما آمين ومن خدم لا يسجل بابا واحد من أحبني إليه فرسوله يا مسا ما هو واحد وكل من شتمني آمين وهب له توبة واستسلاما آمين وكل من أساء فليقم بها فليغتنم خدمه آمين أيوة يا أمين يا رب العالمين بارك الله فيك وارثك كايدو سدوم Bring that one. sax tey de moom mën nga laa mën. may ñu ko rek da ngay jéem nag Bamba kay bi sax tey de tey de tey de tey de moom taw fex laa moom. may leen ko mu nuyu mu nuyu boppam. Bamba bàyyil jooy yi. Bamba bàyyil wàllu tournel. déglu leen. nee na nga teel nee na nga ko. nee na nga teel ko. may leen ko photo. may leen ko photo photo may leen ko photo. waaw waaw yaa jongoma doom de yaa jongoma doom taxaw taxawul photo photo photo photo moment bi nga def parce que bilaay ma jongoma photo wu leen ak Wally dama may ma photo ma ma aja xoolal fii xoolal fii ñu foto foto am foofu foto am foofu dafay yàgg day dem tëngeej loxo bi loxo bi foto am foofu day dem tëngeej tonton may ko benn photo may ko benn may ko benn photo may yas kontaan na may yéen ñaar kenn taxaw dama ko dama yéen ñaar may yas taxaw may yas taxaw may ko may ko may ko waaw yéen ñaar waaw beneen beneen beneen beneen beneen beneen xool ma fii xool ma fii xool ma fii Mayacine Mar ak Wally. beneen. jaana. Wally félicitation. Wally Wally félicitation kontaan naa. jërëjëf jërëjëf. na gaaw na gaaw na gaaw. posal gaaw. maa ngi maa ngi c'est bon c'est bon c'est bon les gars c'est bon. jërëjëf jërëjëf.